ne tëjee ko ko suba tëje ko ko mm-hmm. ngoon bu balakaar waxee nga ñëw wax ma ko ma dajale muqaddami ñu dagg kurusi te xam na jaratu allahu akbar macha allah maam Abdou Hamid Kane dem ñaan ko suba ñaan ko ngoon ca suba ga ba tubaab bi xool kañ la koy convoqué président France yónnee benn télégramme ne Boubacar dañ laa soxla benn mission boo ñuy doxali ca Monaco keroog lañ bloqué Monaco ca Boubacar ca Monaco ba fi may wax ak yow benn ñaata wa min manaaqibi maam Cheikh Sidi Hadji Malick radiyallahu taala anhu dafa jógee ci jàkk ji simi mbubbam wéet ko ko ci porte monte bi ndeke maam Sofiyatu ñang suñu ya suñu maam ju baax ja ma nga jël ma nga jël ànd ba def ko ci suufu porte monte mbub ma wadd na bëpp ci kaw xal yi maam soviet na bëret mu ne ko lan la mu ne ko sa mbub maa ngi lakk mu ne ko waxal astaghfirullah fi ma jaar ak yàlla lu mu tere woon ma ba ko lu mu digle ma def ca la ma man foog naa ne yàlla dina ma rus bay lakk lu bokk ci man mbub mu alaaji maali rakk sol foog naa ne yàlla du ko lakk soviet mu ne ah mu ne ko bàyyil mbub mi ci kaw xal yi bu ci defee 30 minutes ñu yëkkati ko mu lakk ma dagg sama kurus xam na la yàlla woo newu ci allahu akbar ñu bàyyi mbub mi lu ëpp ñuy ubbi seen antenne bi maam soviet yëkkati ko waxuma la lakk waaye dóom sax taxu ci allah la ilaha bi ci des góor gi ahmad diagne daayira fii la dëkk Ahmed Daan Daayira tey laa lay wax lu ko booleeg Seydi Hadji Malick radiyallahu ma nga dëkk dëkk bu ñu wax kët seet jaxu quelques kilomètres da noor da ñoor a diri mhm. baykat la woon nawet dafa jot mu bay amul beneen nawet jot mu bay amul beneen nawet jot mu bay amul benn naar ñëw saalum ñëpp naan naar bi ci dëkk bi lu mu ñaan mu nangu mu dem ci ñaar bi di ko listixaarloo naar bi ne ko bul wax yow xam naa sa problème bay nga ñetti at amoo booy bay ba téeméeri at doo am hmm? lu tax mu ne ko sa mbir dekkul ci bay Pape An mën a waaxu xam nga jëm ko gën hmm? nañuy def mu ne ko yow benn sëriñ boo xam ne moo yor ndanooy rasulillahi ci kaw suuf moom la la yàllay booleel dina def ci yow ñaar dina def ci aw xam-xam ba kuy wut xam-xamu baatin ci yow lay ñëw dina def ci yow ijaaba ba looy ñaan mu nangu demal seeti ko mu ne ko fu ne mu ne ko xaw ma ko nu mel mu ne ko ku am taxawaay lay doon day xeex fecc bu ko gis bëgg ko mm-hmm. bi ci des mu ne ah mu ne ko boo koy gis danga koy fekk muy jàngale mbooloo mu baree koy wër ñëpp ay boo ko nuyoo ñetti baat la lay wax bu la fayee bu ca tegee benn baat du moom. allahu akbar dégg li ma la bu baax boo laajtee fa mu dëkk ñaari dëkk lañ lay wax ni ñu waxee muhammadun makkiyun madaniyun sëriñ boobee boo demee ci moom ñaari dëkk lay dëkk wër ko muy wër Sénégal dugg na gox boo xam ci Sénégal sëriñ bu ñuy wax ñii mu fekk leen ñaan sëñ bi daa fatu ñii mu fekk sëñ bi waare ñii ñaan sëñ bi day añ ñii ñaan sëñ bi day waar mu dem ci benn sëriñ fekk muy jàngale bi mu ko nuyoo mu naan ko ana waa kër ga mbaa defuñ dara di jàmm santé jëpp mu ne man ñetti baat lañ ma waxoon du kii ñëw ba dëkk bu ñuy wax géej gi neew ñu tegtal ko ne ko am na góor gu ñëw alaaji Malick si ci Tiwaawan demal seeti ko mu ñëw fekk maam Maodo fekk lu wax góor gi lu ñu wax góor gi ne ko ah ne ko demal seeti góor gi mu ñëw fekk maam alaaji Malick a ngi toog di jàngale mu ne asalaamaaleykum Maodo ne gees xool ko ne ko waaleykum salaam mbokk mi na nga def ana waa kër ga tafaddal ñetti baat bu la nuyoo ñetti baat la ciy teg as waaleykum salaam mbokk mi na nga def ana waa kër ga tafa dal daal di toog mu ne ah am naa ñaari point dañ ma noon ku ko gis dafa rafet boo gisee da koy bëgg ñaar yooyu dal na ñetti baat la ma tontu naa toog déglu ba pare dërsu bi pare Saaj Malick waaxu rek dugg ci biir mu laaj taalibe yi na leen waaw kii fu mu dëkk am ku ne ko ah, ma nga dëkk dëkk bu ñuy wax waalo am ku ne noo kii bàyyi ma nga dëkk Jolof mu ne waajaangi mu ñëw Cheikh Sidi Hadj Mahi radiyallahu anhu téye juróom ñaari at la ko téye yóbbu ko Dakar dalal ko fa ci benn kër fii ci kër benn këru lébu lébu ñu baax lañ ñu bari teraanga ma laaj mal daano lébu ñooy sama ñooy sama ansaar wallaahi Maodo ñëw boole ko génn góor am na jàkk ci biir kër gi mu ne ko dee jiital ku la ñaan yàlla dina ko nangu ama jaañ daayira def Dakar ñaari at mënta am cent mu xëy na maa ngi dem si Hadj Malick parce que la ma naar ba waxoon du dëj munuma jàng ci alaaji Maalik tarbiyu ko am xam-xam te munuma am dara trois heures du matin mu jógee Dakar di dox ak tànkam ba puut neuf heures jot mu gis nit ñi waaxu mu gis topp seen kaw ndax xiif na amul lekk lu xew fii ñu ne ñuy ngénte lañ jëm mu ne bàyyil ma topp ci am lu ma lekk doo ko dox topp naaju dem Tiwaawan fi ñu toog di waaju tudd doom ji am waaju toll nii nii nii Pape Hann toll nii mhm. ñëw taxaw yor benn enveloppe naan ana Amath Diagne Amath Diagne ana Amath Diagne Amath Diagne ñoo ñu ne ko kim dee dal na ko da tudd Amath Diagne mu ne mu ne ko wuy mu ne la béykat mu ne yaa Amath Diagne am alaaji Malick la ko jox. rabbi su muy téye enveloppe bi waa ji ne merci beaucoup. la ilaha illallah mu ubbi lettre bi fekk ci bindu maam Cheikh Seydi Hadji Malick mu jox ko turu yàlla wi koy ubbi ne ko bul yegg si dëppal te moom waxul moo dana maa ngi ñëw téléphone amul. allahu akbar. déggoo li ma lay wax mu ñëw Tiwaawan mu ñibbi Dakar ci guddi gi la jàpp. tur wa mu laal ko yeewu di doxantu ci sëgi ndakaar yu njëkk ya laaj ko mag magi fañ fañ denc di ñu teedeen ñoom maam Amadou Assane Ndoye fa ne bi muy doxantu dajeeg benn tubaab mu ne ko monsieur mu ne ah mu ne ko yow da may niru kuy ñaan mu ne waa dama am soxla bëgg ku ma ci ñaanal mu ne waa bismillah waaye tubaab bi ubbi ko foo jox ko 300000 ca jamonoy maam alaaji ma mooy 300 millions boobu jamono 300000 booba milliard ne ko suba dinaa ko jël dinaa ñëw nga jox ma nga ñaanal ci suba ko mu ñëw woo ko mu génn ci buntu kër gi mu ne ko li nga ma doon ñaanloo nangu na beneen trois cent mille ngóob na ma cet te gisatul tubaab ba daf ko koo jox rek disparaître mu toog quelque temps Seydi Hadji Malick bind ko lettre na ko Ahmad Diagne bañ may booleeg yow bala bala naar ba di booleeg yow ngay ñëw ci man yëgoon naa ko bis bii nga doon xaar man Alaaji Malick ku ànd ak man ma defar si allahu akbar radiyallahu beneen bi ci sunu maam Baaba Awa Ndaw dafa toog am jafe-jafe mooy mag ñi liñ daan tiitaroo mooy nu ñuy def ba gis yonent bi moom mu toog jaamu yàlla lu mu xam jàng na ko mënta fexe gént gis yonent bi am ku ne ko am na góor gu ñuy alaaji Maalik ci tiyaan boo fa dem wàllu yonent bi waxuma la maam alaaji Maalik de maam alaaji Mansour alaaji Mbay dëggal papay Aziz maam Faama ci télé ànd naa moom ca binti sëgu Tiwaawan di ko guddi mu jox ko benn dog ci salaatul fatiha Baye Alaaji Mbay nee na matul vingt ma di ko wird balaa may pare yonent bi ne jamet na ma bàcc ma xool ko mu ne ma jàpp na ma ana rasulullaah ma daanu xam mu ñëw ma Sow ne ko eh yow ma laa wan yonent bi wan a guma la Cheikh Tidiane ngaa xam bu ma leen boolee ñaar ñi foo jëm. allahu akbar alhaaj Mouhamadou Mansour alhaaj Mouhamadou bal xaw ma baayam. Mbay toog naa mu di ko nett. bal xaw ma. yàlla dogal mu ñëw Ndakaaru. góor googu ñëw Tiwaawan seet si Saaj Maali Baaba wa Ndaw bi mu ñëwee. ndeke moom soxlaam mooy gis maw gis yonent bi. sallallahu alayhi wa mu fekk Maodo fi muy jàngalee ci jàkk ji. mu ne ko man de faa xamoon soxla soxla bi faa bëgg ku ma ko fajal te faa la ko du wax malaaj maa la ko dugal ci pantere bi may jaamoo yàlla te téere yi ne fi koo fa fekk nga wax ko sa soxla mm-hmm. mu dugg ci pantre bi dekk fa ñaari góoru naar yu xees pecc mu leen jàpp loxo loo bëgg ñu ne Maodo ma yónnee nañ ma ñaaral mu ne tàll la loo bëgg a nekk mu ne taalibi Cheikh dafa afale naar bi jàng salaatul faatiha ne ko génn mu génn fekk Maodo ci zawiya fekk mu ne ko mel mu ne ko xam nga ko mu ne ah, mu ne ko la la a jëg ki ci day joor mooy rasulullaay sallallahu càmbooy mooy Cheikh Tidiane mu dawaat dugg ci néeg bi fekk kenn Maodo ne ko ah da ngaa foog noonu la yombee sama jotaay bii bu ngeen foogee ne caaxaan la da ngeen di nax seen allahu akbar Cheikh bi ci des moo di Sërif Maxtaar bu xaay lii ma lay wax sama goro alaaji Cheikh Mbay ma dikke moo ma ko nettali nee na Serigne Moustapha Sy Jamil moo ko ko nettali nee na Serigne Babacar Sy moo ko ko nettali nee na Cheikh Seydil Hadji Malick moo ko ko nettali radiyallahu anhu amul werante Sërif dafa amoon kashfu daan gis yonent bi vingt 27 fois par bis. sallallahu ñaar fukki yoon ak juróom waaye yàlla nattu ko mënta dem mag yoon bu waajee pour dem màkk am soxla bu ñëw xaalis ba jeex mu dugg xalwa di laaj lu tax mënta dem màkk yonent bi feeñu ko ne ko am na ku yor sama ndono ci kaw suuf ñu koy wax alxaaju maalik si boo ko gisee mu jox la paasu màkk boole naa leen. Hmm. déggoo li ma lay wax waaye ba keroog nga koy gis bu lekk lu lewul mu jël ñaari nagam yu ñuy rat. ma nga jóge xaay ca Mali toolam bu mu bayoon mu bojj ko soq ko def ko cere war mbaam war walal taalibeem ab mbaam suñu xiifee dañuy ratt ci nag yi defar ci cere ji lekk mu ñëw ba génn gi neew mhm. ñu mayaat ko fa fas mu war ko fi mu tëddi nelaw ci suufu garab am lu ko feeñu ne ko kuy seeti ku lay yóbbu ci yàlla donte la sëtub yonent bi nga waroo sorlooy tiitaroo te fas ëpp na ci yow yemal sa mbaam ba gis sa waay mu delloo fas yegg si si Aji Malik xool ko muñ ne maam Sey Batu Faal mu ne ah mu ne ko bu ma la gane si woon nooy def mu ne ko lal bu ma gën a rafet la laa lay jox néeg ba gën a rafet ma jox la ko lu ma gën a baax la jox la ko di la teral ba keroog ngay tàqali ko mu ne ko kii deretu laay la mooy sama kilifa yóbbul ma ko ndeke ki ko li ko feeñ unité bi daf ko ne ki lay yóbbu ci yàlla te di la jox paasu màkk yor sama ndono yaa ngi koy xamee ci lii timis la lay jiite premier rakk ma ngay jàng inna anzalnaahu deuxième rakk ma ngay jàng isa zulsilati te du ngeen yëgoo sëriñ boo dem ci moom mu jiitale timis def lool jàppal mooy yor sama ndono moo lay jox mag koo dem ci moom jàngul lool ba ko fa day tardé. ci fu mu jaar rek nga jàngale jaar yëpp dem Guinée Bissau <laughs> Mali Guinée Burkina Faso ñu naan aleykum takasur ñu naan aleykum ñu naan amana ñu naan xul yàlla kaawaroon mu naan non c'est pas l'appel quoi <laughs> ñëw Tiwaawan si Aji Malik nee na bi mu ñëwee kër maam say bëtu keroog dafa sonn julli suwul tusubaat julli suwul tàkkusaan timis pare 6 heures mu sañse ñëw toog ci jàkk ji di xaar di xaar timis gi maam Maalik ku ñëw Tiwaawan te ñu di lay tuddee nitu yàlla mbaa sëriñ du la jiite day wut ñu day lay jiital keroog lañ gis nit ñëw da jiite ndeke yëg na communication billahi ñun tey lañ toll ci whatsapp mag ñi fa seen whatsapp di yàgg na yëg na ko c'est-à-dire nañ ko Maodo taxaw rek ne defal leen sàppe fekk Sëriñ Maxtaar si gën a wax nee na ko nee na ko ki lay jiite te ki lay yóbbu ci yàlla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 malik yawmi diin jàkk ji riir te yàlla mu ne man sama yoon ci faatiha bi dina ñëw rek <laughs> iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يم مثقال ذرة خيرا يره ومن يم مثقال ذرة شرا يره الله دم بي كبر سيرف بختار وقت قلمنا يا ليته أن يكرر السورة حتى تحقق lii bi am na hoohu loolu mooy lan ak neexoon mu reprendre saar bi ba mu wóor ma ne du asaar mooma ci xelam la ko wax ci xelam la ko wax moo de dellu ne ila silsilatul mu daanu xam. yàlla xam kay day dee. man la man damay dagg julli gi. aywa aywa aywa sëriñ bi billahi. faridul asri mintu fi zamani wala sabani ama billahi xalifa bi sabani sina sabani Serigne Babacar Sy wax loolu aywa lii xalifa bi sabaan bay sina sabaan ya ma Sabani Amar فوق تكو هو العلم الفقيه نزيه علم الجحل خليفة شيخنا نجات جاد سبانيا ما سبانيا ما سبانيا موتنا سبانيا ما سبانيا ما سبانيا فوق تكو هو العلم الفقيه نزيه علم خليفة شيخ alxaaji Abdul Aziz Si Malick ku sopp da baax Malick maam alxaaji Abdul Aziz Si da baax Malick waykat yi nee nañ 40 ans sa rafet ma leen wax leen astaxfirullah jiru ah. dund sa rafet warabul waraay da baax Malick mooy amaatal hawa munsu sabiyi li nafsihi wa asha karimul xulqi ma kulli suudadi waajadi alaaji maam Abdou génn àdduna mu ne aqila li aalimul abraari qad afala am qiila lii kawkabu saarina qad afala fa diinu wal ilmu maa jafat uyuunahuma musqaaba abdul aziz al barru wartahala ceerno bokar kan ca kahida ne abdul aziz inna shariata wal haqiqata qaalata abdul aziz lana imamun kaamilu sëriñ Maodo si nee na rat mi nga xam ne moo baax te xam baayam na sama baay ñu ne ah mu ne ko masajidallahi fil fil aqtaari assasaha rusdan liman dalla tambian liman xafala góor gu tedd góob borom jeg saaw mooy bëgg a wax ci baayam maam Cheikh Seydi Hadji Malick wa rabbul wara yuhdi liman shaa eh, maam Abdou ne ne eh yéen waa carte générale tey leen li alaaj Aline Diagne di wax ci alaaji Malick bu leen ko yéem sama baay du ay pexe ko ko may du lum sangoo du lum wird wa waraa ki bind jaam ñi te moom lem yooti mooy joxe man shaa ku ko soob lu ko neex minal waraa ci jaamu yàlla yi maa yashaa min afdaali jaamam yi te yàlla bu dee may lam lay may da rëy ba kenn du ko mën a takk kenn du xam nu mu toll Seydil Haaji Maari wa annakum haqqan mu ne ko yow de baay yow de baay wa annakum naka yéen Cheikh Al Haaji Maalik Si haqqan dëgg almiimu harfun daalun li jam'in mudakkarin saalimin nafsahu awil muazzamu maahu xayrahu mu ne ko wa annakum waxul wa annaka da koy màggal wa annakum haqqal xaliil mu ne ko ca dëgg-dëgg wóor na ma ne yow yaay xalifa Maulana Cheikh Ahmed Tidiane ci kaw suuf yow Baye Laaj. abil fawdi Maulana. cheikh mi nga xam ne dafiinu Bulayda tin moom lañ dent ca Bulayda te ba ñuy laaj cheikh alhaaji Malik kan mooy cheikhu Tidiane def ne inna tijaaniya taajun la nadira lahu allahu sharafahu fiina wa wallahu cheikhu Tidiane allazi ma hadda saahiluhu azban furatan namiran tayiballahu maam Abdou nee na góor gu tedd googu sama baay wax loolu ci moom et pourtant dellu siwaat na moo ko doon aya sayidi e yow mi nga xam ne duma la wax bàyyi yaa sayyidi yow alaaji Malick yaay sama sang man alaaji Abdou Dabakh xoolee wu ma la bàyyi dëgg la yaay sama nijaay lu tax mu ne ko parce que Amady Farimata Mbacke Thierno Farimata Mbacke Ibra Farimata Mbacke ñoo bokk ndey ak baay Ibra Farimata Mbacke moo jur ngañ moo jur xari Mbacke mu jur ngañ ñang mu jur sama mu jur sa Sofiyatu ñang mu jur ma Thierno Mële moo jur Mati Mbacke mu jur Ousmane mu jur Alaaji Malick kon xaali yaay sama nijaay duma jàmbur ci yow wa shaykhi yaay sama sëriñ yow da baax Malick ay Maodo wa waalidi waaye nag bi yooyu passé yëpp nag ya wa waalidi gis nga ni mu ko mujjee malaabi aw ma kenn ku may wéeru rafetal gi bare na waaye bu ma amee ginnaaw gu may wéeru man da baax Malick Seydi Hadji Malick wa bu ma jàppee fa may dugg ba am sécurité Seydil Hadji Malick ma gindi ba teg ma ci yoon ba ñëpp di ma xam yaa ma jottali teg ma ci loxo rasulillah ilal malik ma yóbbu mu ne ilal ci buur bi nga xam ne al maabud moom la ñëpp yi jaamu jalla jalaaluhu yàlla mi nga xam ne jalla na jalaaluhu màggam ga wa yaa ma yóbbu teg ma ci wa afdali mabuusin ci gën ci ku yàlla ma su yónni muy xayrul wara ila xayri ummati ki nga xam ne moo ñuy teg ci yoon wi gën ci yoon yi muhammadin al muxtaar mu andi badal ba ne muhammadin koo almuxtaar ki yàlla tànn mu gënal ko ñëpp. nux ba di Hachim. moom la yàlla tànn ci giir ba ni Hachim. wa Seydina Tidiane. yaa ma teg ci loxo Cheikhu Tidiane ba tey may loxo xali may xalifa Cheikhu. aadamu qudwati. kookaay kan mu ne Cheikh Tidiane ne aadamu qudwati sama wéeruwaay yi ci gën a màgg man da baax Maalik mooy Cheikhu Tidiane. xadimaamil Abbaas. kookaay kan mu ne kooka mooy aba abul abbas bàyyi borom këram yi njëkk yi wut yàlla waari bi sirri kooka mooy ki nga xam ne moo doon sirru seexu tijaan alaajuma xasinati asrar mooy booy wut ndam bu leeru secret seexu seexu ne tijaan bul dagg paas dem faas ñëwal tiwaawan ki doon nu seexu tijaan mu ngi tëdd tiwaawan tariqa tijaan ki ko dundalaat ba ñëpp di ko tiitaroo ci bi le seexu tijaan a ko fonde rasul teg ko ci loxoom waaye bu naasiri xaq bil xaq di jóg ñëpp di ko tiitaroo fii ci Afrique de l'Ouest grâce à maam Alaaji Maalik maam Abdou ne fala sakk amul benn sikki sàkk ne anna allah naka sunu borom yàlla xasaka cheikhana xasa jagleel na cheikhuna xalif eh, siidi maay wax um, euh, loo ko bañ bañ seedeel ko ñaar mën a daw ak sob ak guddi nopp mbaam loo ko bañ bañ ñett kon mbaam loo ko bañ bañ seedeel ko ñett seedeel ko ñama ceew na ñeme ay yet aku caay-caay ak gudd nopp waaye maam Alaaji Maalik loo ko bañ bañ seedeel ko ñeent yi may bëgg a wax bari xam-xam lool ba ñëpp xam ko seetle ko ba kenn amul loo cay duut baaraam mën a koo joxe ba ku ko yaakaar mu defar la baaxi doom ba ku ne sañoon a jur ay doomam billahi mu ne am yàlla ko may ay may yoo xam ne kenn mënu koo takk ba ba àdduna tukki asayidana quttal ibada jamiahum asayidana quttal ibada jamiahum mu ne ko yow bàyyi xettali nga jaam ñëpp mboole seen ilallahi fan qaado bi ilallahi jëme leen ci yàlla ñoom ñëpp fan qaado ñu wommatu topp la waliinin nga defee ko nag ci nooy wa aadaabin gën leen a yaru wa husnu sir di bu rafet ak jëflante bu rafet ba taalibe yi bëgg la boo leen waroon ñagas walaw kunta faddan xalital qalbi lam faddu min xawlika fa bima rahmatin min allaahi linta lahum la ko walaw kunta faddan min al qalbi lam faddu min xawlika mu kon loola nga doon ci yonent bi ba dangaa nooy ba taalibe yi bëgg ya eh yonent bi ma wax la leen Babacar moo ko wax nee na yonent bi dañ daan yendu ba jant bi so ma tàgg ko di dem sama di aññi balaa maa aññi na maat ko balaa añ bee pare man na maa jëmm ji boo koy tàggu rek di ko namm waaye moom laa ji maal taalibe yi dañ ko bëggoon ba da gis ku ñëw nuyu ko génnaat ci jàkk ji ñëw nuyuwaat ko génnaat ci jàkk man nag noonu laa mel ci ko sant si man bu ma toogee ko sant si du ma doyal Serigne Babacar Sy Mansour ak Serigne Baye Abdou Serigne Maodo si ku ma ci nuyu minute bu ma la gisaatee day mel ni tey laa lay man ku sant si bu ma ko gisee dafay mel ni dafa beesaat ci sama ko ci nuyu mu gën laa yaru ku mu gën laa yaru gën laa bëgg doo ma bàyyi ma continuer murabbin yow yaay defar katu nit bi yaay yéege nit yàlla ñeel taalibe yaa koy yéege ci yitte ila kulli jërëjëf yal na yàlla fa yow yaay Malick wallaahi yow yaay xamaakoon jërëjëf waaye sóob nit mu dem jàmbaar jàngoog Cheikh Seydil Hadji Malick léegi nag ñu ne sëriñ léegi nag ñu sériyeel waxtaan Pape An sëriñ boo demee ci moom mu jox la wér mbaa nga yaakaar ko